Euh, réaction bi ma ci am mooy masawu leen lu metti la lu tiis la wax dëgg yàlla ku ko gis sa yaram daw ndax ni nu génnee àdduna waaye nag xel mën na cee dal li tax xel mën cee dal mooy Seyduna Muhammad dafa am ñu mu waxoon ni dañuy shahid maanaam bu nu génnee àdduna àjjana direct lan jëm maanaam martiir lañ koy wax xaw ma ci français bokk na ca jigéen ju doon am doom jaare fa ñàkk bakkanam bokk na ca itam ku dee ci lakk-lakk képp ku génn àdduna ci lakk-lakk Seyduna Muhammad nee na martyr martyr nga maanaam shahid nga aljana nga jëm xanaa ñu ñu ñu dalale loolu loolu sunu xel ci ñoom génn gi nu génn àdduna ci lakk-lakk te yonent bi wax ni ku faatu ci lakk-lakk àjjana nga jëm ñu dalalee sunu xel ci loolu waaye metti na ñu ngi massawu ay fameem di massawu seeni mbokk yëpp di ñaan yàlla sunu borom yàlla yàlla yéegi leen ci aljanna ya gën a kawe ci darajay sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam